alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ginnaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen te di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu bu rëy bi la ci lislaam ñi ngi ndokkeel ñëpp eh, di tatagal ñëpp eh, di wax ñëpp ni tey bis la boo xam ni bis bu rëy la ci ci islaam ginaaw màggal googu nga xam ni màggal nañ ci yàlla sant ko ci moom borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo yeyoo sant ñoo ngi seede ni amul benn buur bu borom bi subhaanahu wa taala waaye itam ñoo ngi seede ni itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ko moo ko yónni boobu nag yàlla def ko yónni ci xeet wi wax ni wa ma ataakum rasulu fa qassuuh wa ma naakum xanu fantahu lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa indil na leen ko na ngeen jàpp loolee te xam ne loolu mooy dëgg lépp loo xam ne tara na leen ko na ko bàyyi te xam ne loola mooy caaxaan waaye yonent boobu moo wax nii ni zay zayinu axyaadakum bi takbir na ngeen màggal bisu ayit ci tudd borom bi subhanahu wa taala waaye maa ngi koy kañ moom borom boobu subhanahu wa taala ndax tey jile mboo lu bari ci doomu aadama yi wala lu ëpp ci jullit ñi danañ daje kenn ku nekk docteur am xar rey ko ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa taala maa ngi màggal yàlla ci loolu waaye itam may may may wax ni bis ni bisu tey bii bis la boo xam ni bis la boo xam ni bu baax a sarxe la bis la boo xam ni bu baax a joxe sa alal ci yoon yàlla la waaye itam jëf yëpp nag nañ ko jëme tey jii ci màggal borom bi subhaanahu wa taala ci sellug sellug yéene ak jëf joo xam ni jëf ju ju rafet la waaye itam maa ngi kañ borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ni moom tey jullit ñëpp wala lu ëpp ci jullit ñi daje nañ ci barab yi maanaam kenn ku ci nekk akolaat sa morom kenn ku nekk saafonteeg sa koo xam ni am na lu doxante doxoon sa digganteeg sa morom sax tey fatte nga ko eh, ba nga ko gisee nuyu nga ko akolaat ko ba noppi itam saafante ak moom loolu ñu ngi ciy màggal borom bi subhaanahu wa taala ci dajale gi ñu dajale ci loolu waaye itam maa ngi kañ borom bi subhaanahu wa ndax tey jile mboolem jullit ñi wala li ëpp ci ñoom danañ daje fi barab kenn ku nekk dëgëral sa morom eh, na nga xamante ni ki nii noonu nga ko noonu la ab jullit wala dëgërale moromam kenn ku ci nekk ñoom tey buumug buumug diine dana leen dana leen lëkkale ci maanaam eh, dëggug jëf ak teey ay wax loola itam la ñuy wëlbatiku wax leen ne leen buñ dajee ci barab yi nañ soppante nañ yërëmante ndax loolu mooy li nga xam ni moom la bis bi moom la bis bi laaj mboolem jullit ñi tey kenn ku ci nekk maanaam yaa ngi mel ni ab tabax boo xam ni euh, euh, yaa ngi dimbale sa morom ngir moom mu mën a dëgër na nga xam ni noon nga noonu nga dëgëre wala sax ñu mel ni ay tabax ndax yonent bi sallallahu alayhi waxoon ni ab jullit kat ak mbokkum jullitam dañoo war a mel ni ak tabax kenn ku nekk ci moom ñoom moom di dimbale morom ma cëlamtale loolu mooy lan mooy tabax buñ ko mooy buñ ko nammee def dañuy wuti seet dañuy seeti seen mbokk mu ñuy wax ndox seeti mbokk mu ñuy wax suuf seeti mbokk mu ñuy wax xeer seeti mbokk mu ñuy wax euh, fer seeti seeti itam mbokk mu ñuy wax ciment ñu boole leen buñ ko tabaxee su woowee rek dana dana dëgër lool tey jën a julli ñi noonu la ñu war a mel kenn ku nekk dimbale moromam ci la nga xam ne loolu la loolu la tëlee ndax yooyu ma lim benn bu ca nekk am na lu mante morom ja mënu ko waaye bañ leen boolee rek am na lu jëmal kon tey jii noonu la jullit ñi war a mel ci ci bis bi waaye itam loolo itam buñ booloo ba noppi nag ñu wëlbatiku ànd nag sàmm sàmm booloo ba nga xam ne du màbb mukk loola mooy li nga xam ne moo war jullit ñi tey ci bis bi waaye tamit li nga xam ne war na jullit ñi ci bis bi mooy kenn ku ci nekk maanaam mel ni jënd jëmm la maanaam joo xam ni benn cër rek su mettee ci moom mboolem cër yi nga xam ne ñoo nekk ci yaram wa dana ko yëg noonu la jullit ñi war a war war war mel tey te loolee doon loo xam ne luy luy sax la ci ñoom ndax buñ ko melee ba noppi dañ ko war a sàmm nag mu bañ faa jógeeti insha allahu taala maa ngi kañ borom bi subhanahu wa taala te di ko maggal euh, moom mi nga xam ni dimbale na ma te dimbale leen lenn ci jaam yàlla yi maanaam tey jii ñu taxaw fi kanamam te te màggal ko ci bis bi ca ngëneelam ya nga xam ne defal nañu ko te jéem koo rafetal na nga xam ne noonu la suñ kemtudayel kattan te yàlla borom bi subhanahu wa taala dig nañu ci bis bi ne su ngeen defee loola leen jox man li ne fi man man borom bi subhanahu wa taala te tey jii nag suñu daje yii ñu daje bu ñu defee ne dañoo sawar rek daje déedéet bis la boo xam ne nii ñu ci dajee borom bi subhanahu wa taala dafay dal di euh, woomu lay yëpp ñu daje yàlla borom bi subhanahu wa taala di kañ boppam di tiitaru ci kanamu malayka ya di wax ne gis nga leen sama jaam ñi nga xam ni ba ma leen bëggee yóbbu àdduna da ngeen waxoon ne ñoom mooy yàlla rek lañ fay def tey jii ñoom ñëpp daje nañ ci barab yi di ma jàmm yàlla borom bi subhanahu wa taala day puukarewu ci loolu daan innal muttaqina koo xam ni ragal na ca yàlla rek fii jannatin wa nahar dana nekk ci àjjana ya nga xam ni ay ay ay yol dana daw ca suufam waaye itam bokk ci li nga ci bis bi mooy tudd yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa def ay ay takbiraat yoo xam ne yu baree baree bari la yoo xam ni ma nga war a tàmbalee sax démb bi nga xam ni mooy yow mu araf ca la bis booba lañ ko war a tàmbali ba ci tey jii ba suba ak gannaaw suba incha allahu taala waaye itam bokk na ci li ñu sopp ci bis bi mooy tër am xar rendi ko ngir jëmi yàlla loola nag nit deful jaamu yàlla gu ko gën a kawe ci bis bi loo gis nit di ko jaamu yàlla ci bis bi rek loola moo ca gën a kawe ndax loola mooy li nga xam ne moo sabab moo sabab bis bi waaye itam képp koo xam ni rey nga am xar la nga xam ni moo gën a yàlla ci yow wala la gën ca ca ca la nga xam ni mooy mooy gàtt boobee nga rey mooy nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi nga jëfandikoo ko yàgg sa njaboot benn bi nga saraxe ko benn bi nga maye ko loolu lañ sañ a def ci ci xarum tabaski waaye mbokk yi xarum tabaski kenn du ca jaay dara kenn du ca génne lenn di ko jëme fenn di ko tudde nenn lu dul maanaam ab sarax lay doon wala mu doon loo xam ni sa mbokkum julit mu ca néew doole maanaam nga dimbale ko ca nga may ko ca joxe tuuti itam dara newu ci loolu moom dara newu ci du bakkaar waaye lu ëpp tuyaaba nag mooy xaaj ko ñetti xaaj bii nga fas yéene koo jëfandikoo yàgg sa njaboot benn bi nga saraxe ko benn bi nga nga joxe ko adiya su ko defee ngeen xam ni itam dundale ci bis bi itam lu baax la daje gi nga xam ni jullit ñi itam daje nañ ko kenn ku nekk maanaam saafaanteeg sa morom kenn ku ne nuyu sa morom kenn ku ne baalu sa morom loolu itam luñ bëgg la ci bis bi waaye itam tey jii kenn bëgguñu ko wax genn kàddu ñaaw ndax ku mooy yàlla ci bis bi rek dafa may dafa mel nii sa dund gépp da koo mooy yàlla bis bi du bis bu ñuy mooy yàlla lu nit tëre di tëre di tënk boppam ci fas yéene maanaam di wax ay takbiraat yu bari di julli ci yonente bi sallallahu alayhi moo xam ci ci ci nu mu ko mënee wala muy def sikar la tàmbalee ci alquran ba ca lu man rek mu fas yéene di ko def ci bis bi loolu la def ci bis bi waaye leneen lu bokkut loolu kenn du ko def yi nga xam ne itam dañ koo sib ci xar mi nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy fas yéenee def rendi ngir jëm borom bi subhanahu wa mooy euh, ki koy rendi bañ a yor paaka bu ñëwut loolu dañ koy bañ ndax lool dafa yàggal rendi ga te rendi ku kenn ku ne xam na ni dafa metti waaye itam yor paaka bu gaaw boo xam ne danga ca mën a gaaw a noppi loola bokk na ci li nga xamante ni ki nii maanaam bëgg nañ ko ca waaye paaka bu ñëwul dañ koy sib ci ci julli ci ci ci ci rendi am xar ah, jublul ko feneen fu bokkul ak loolu itam dañ koy bañ waaye itam jël am xar tëral ko di ko rendi yeneen moromi xaram di ko xool itam dañ koy bañ ci dañ koy bañ ci bis bi waaye itam ñu rendi xar mi rek mu toll ci weq nga daal di koy jël tàmbali ko fees te seddagul loolu itam dañ koy bañ ci bis bi waaye itam bëgg koo rendi muy nga di ko diri itam noo mën a naxanteeg moom ba ba def ko rek nga moom ba def ko waaye bu ko diri itam di ko diri maanaam wan ko la am naa kattan yow yàlla dafa sëggal sam xel néewal sa kattan danaa la diri def la li ma la a rendi ba noppi wëlbatiku damm doq ga loolu itam dañ koy bañ euh, dagg baat ba ba mu taqali ko itam loolu itam dañ cay dañ koy bañ waaye jël lu bokk ca tabaski ma moo xam ndawal ga wala darba la wala lu ca bokk di ko jaay dañ koy bañ ci ci ci ci bis bi waaye itam mbokk yi ñu xam ni itam li nga xam ni jullit ñëpp war nañ cee bàyyi xel rawatin réew mii ñu nekk mooy li ñuy wax social loolu su yóbba moo wax ni mooy suñu xutba tey maanaam nit ñi dañ wëlbatiku kenn ku nekk jox sa moroom loxo moo xam ca noo ko mën a joxe loxo moo xam ci am am la moo xam moo am ci xam-xam la moo xam ci kattan ak lu mën a doon rek loolu nit ñi war nañ cee bàyyiwaat xel bu baax a baax baax ndax bu ñu bu ñu bàyyee xel suñu réew mii ñuy dund war nañoo xam ni nit ñi sonn nañ coono boo xam ni la nga xam ni moo ñu ko teg mooy ñàkk ñàkk def li ñuy wax social. ndax lan moo tax ndax nit ñi ko yàlla sant borom bi subhanahu wa taala bu doon noonu lañ ko jëfee rek nit ñëpp ci tawfeex la ñuy dund loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne yàlla jox na leen dañuy dañuy génne azaka dañuy génne azaka su ko defee di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yàlloo su ko defee buñ ko joxee ñi ko yàlloo yàlla mën naa dogal ñooñee bu loola tonowoo ci seeni loxo mën naa am ñu di ko wëlbati ci seeni loxo ba bu ñu àggee ca déwén ñoom itam ñu bokk ci ñuy génne azaka waaye lu bari ci réew mi itam ñi nga xam ne dañuy génne azaka dañuy génne azaka léeg-léeg mu takk lool ñu daal di koy jël jox kii junni jox kii ñaari junni jox kee nangam nangam kenn ku ne lekk sa junni ña nga joxoon azaka bu dewee ne ñu war ñu ñu ñu continuer waat di di soxla ñu jox leen azaka kon li gën ci azaka mooy soo ko génnee nga fexe ba mu am njariñ am njariñ mooy lan mooy la yàlla la taxoon yàlla di wax ñu génne azaka mooy xeex ñàkk nga fas yéene boo ko génnee donte ci benn nit la kooku nga xeex ci moom ñàkk mu teqalikook ñàkk su ëllëg gi si biiree mu fexe keneen teqalikook moom loola mooy la nga xam ne moo taxoon borom bi subhanahu wa taala di génne lu azaka waaye ñu ñuy génne azaka ni ñu ko ni ñu ko ñu ko sante ba doppi ñu wëlbatiku di gën a ndóol loola war nañoo seetaat niñ koy niñ koy génne kon nañ nañ góorgóorluwaat ci jàppalante ak dimbalante ku tane sa morom nga dimbale ko ca la nga xam ni loola nga ko nga ko tane mbokk yi bëgguñu leen téye jataay bu yàgg ndax yitte yi jamono ji dafa bëri te tey jii bis la boo xam ne bu xat la waaye ñu ngi fàttali suñu bopp te di fàttali nii tey jii bis la boo xam ne bu mag la ci ci lislaam ndax bis la boo xam ni ah, yàlla borom bi subhaanahu wa taala teral na ci doomu aadama teral ga mooy lan mooy ba mu fexee ba ibrahima rendiwut ismaila ndax amaana bu ibrahima rendi woon ismaila kon xëy na ab ab ni doomu aadama ci lay ci lay continuer di doye di ba fii may wax ak yow waaye keroog ba yàlla teralee Ismaayil ci kanamu baayam Ibrahim ba yëkkati ko fa mu tëddoon tëral fa am xar boobee day la ni tàmbali di tedd ba fii ma may wax ak yéen waaye mbokk yi képp koo xam ne itam yàlla dogal na amoo xarum tabaski na nga nanga nga wëlbatiku def sa yéene ci ne man de maa ngi dugg ca xar ma nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi rayoon na rayal naa ko képp koo xam ni maanaam ab jullit la te bëgg ko te mënu ko ndax yonent bi dafa jënd ñaar xar yoo xam ni xar yu weex la yu yu yu gudd ay béjjante rey le ko yonent bi tër ko tër benn ba rendi ko ne bii maa ngi ci yéene sama bopp sama waa kër bi ci des yonent bi rey ko daal di wëlbatiku itam ne bii de maa ngi ci yéene bëpp jullit boo xam ni bëgg na ko te mënu ko waaye tabaski mbokk yi képp koo xam ni mënoo ko itam doonu luñ la teg ndax tabaski sax du farat sunna la rek soo xam ni suñu feddali la képp koo xam ni yàlla mën loo na la ko nga def ko képp koo xam ni mënoo ko itam ba wëlbati ko maanaam jéem dugg ci xaram ci yonent boobee am yéene ju sell ci def ay salaatu ala nabi yu bëri addiyal ko yonent bi te na ko yonent bi sallallahu alayhi maa ngi am yéene dugg ci sa xar moomee loolu mooy li nga xam ni jullit bu nekk euh, euh, war na ko kon ñi ngi ñi ngi jéglu ñëpp tey tey baalu àq ñëpp tey ñaanal ñëpp borom bi subhaanahu wa taala dafa leen tawfeex dimbale leen aar leen sàmm leen dafa leen ay xéewal yu bëree bëree bëri bi barakati xaadimu rasul kullu aamin wa antum bi xayrin jazakumullahu